képp ku ci d'accord ku bon nga ku naa fekk nga te yal nga am mujj gu bon képp ku yaakaar ne li ñu def kii lu baax la yal nga am mujj gu salte li nga ni xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga lu leen jàpp xam nga lu leen jàpp soxor ak iñaan boo demee waa ji yor na place am di liggéey yor teraangaam am ku ko bañ iñaane ko parce que li ma ne su la bañee dalay topp ba ci sa biir bàmmeel gis nga lii xam nga preuve ngi nii sénégalais bu la bañee da lay topp ba ci sa biir bàmmeel sénégalais dalay lay topp ba nga dee muy xool ndax malaaka yaa ngi lay mbugal ci biir bàmmeel buñ demee ba yommal xiyaam balaa yàlla di ko jugé danaan yàlla may ma ma dem xooli sama noon bi fan nga ko dugal ajjana wala safara yaa may dégg ñoom sénégalais yi dañoo naa fépp ñoom bañuñu góor jigéen ñu ngi nii seen doom yu bari ñu ngi nii jéggi dugg Amérique gi ñu ci bari déclaré ne ay góor jigéen lañ ñu ñu ngi nii jéggi Europe dugg Europe di déclaré ne ay góor jigéen lañ ñoom coono gi ñu nekkee du jigéen yee leen ko teg xam nga lu leen teg seen coono gi ngeen nekkee seen soxor ak seen ñaan seeni bon yéen sénégalais yi coono gi ngeen nekkee seeni xol moo leen ko teg parce que da ngeen bon xeeti ci addina bi yëpp xeetu sénégalais moo ci gën a bon xëy na li ma bokk ci Sénégal li ma nekk sénégalais moo tax ma xam ne yéen da ngeen bon xëy na man ma nekkul woon sénégalais su ma nekk suñ ma bon na bii xeetu bon duma ko gëm mais dama xam sénégalais dundandoo ki yéen bokkandoo ki yéen màggandoo ki yéen yarandoo ki yéen ba toll ni ma toll xam natt seen dëgëre bon mu jéggi dayoo moo tax ma teg leen fii bu ngeen gisee ma dem ànd gee Gambien du dara de. parce que dama xam ne Gambien yi boo gisee yàlla jël biir biir Sénégal ubbi fa benn gémmin teggi leen ne leen yéen bokku leen fii dañoo yàlla dafa xam ne Gambien yi bokkuñu ki yéen yàlla dafa xam ne Gambien yi bokkuñu yéen parce que xol bi ngeen am ñoom amuñu ko xol bi ngeen am Maliens yi amuñu ko xol bi ngeen am Guinéens yi amuñu ko xol bi ngeen am Mauritaniens yi sax amuñu ko te ñooñu ay jullit lañu. mais yéen da ngeen soxor yéen senegale yi yéen da ngeen bon da ngeen iñaan bañante ngeen seeni biir da ngay gis ko bokkal ndey ak mu bañ ko da gis ko bokk ak. ngeen bul fàtte njabar ji bul fàtte dem ci dem di liggéey doomu jàmbur ak di dem ci gisaane kat looloo gën bon yàlla nee na xola yàlla nee na njabarkat njabarkat du dugg àjjana yéen bokkaale yàlla bi ngeen nekkee du ngeen jë Sénégal mooy dëkk boo xam ne jullit lañu du ngeen julli du ngeen woor du ngeen aji màkk du ngeen natt asaka te ngeen ne ay jullit ngeen te looloo gën bon ku dul julli ku dul woor génn nga ci diine lislaam ku dul julli ku dul woor doo doo jullit ku dul julli ku dul woor doo dugg ajjana loolu yonent bi sallallahu alayhi wa salaam moo ko parce que jullit boo nee julli jullit boo nga danga nga war julli julli boo nee jullit nga da a woor yéen ñi ñu war a taal taaluñu leen mooy ñi nga xam ne duñu julli duñu woor duñu dem màkk duñu natt asaka duñu jaamu yàlla di bokkaale yàlla suba ngoon tey jii yàlla bu doon bu doon ko def bàkkaar yàlla taal la kon tey Sénégal gépp tàkk nañ parce que yéen góor jigéeni ñi sax leen gën nee naa leen Sénégal gépp bu ñu àndoon nekku ay góor jigéen moo gën yéen ni ngeen di dunde parce que réew moo xam ne benn bokkaalekatu yàlla dafa nekk sax moo moo gën a bon réew moo xam ne ñëpp ay góor jigéen lañ te yéen bokkaale yàlla rek ngeen di def bokkaale yàlla ngeen di def bokkaale yàlla di bokkaale yàlla di ko fësal may yàlla di ko jox ay doomu aadama ak ay mbindeef di ko boole kook arrogant ku leen wax ngeen ne ma tey. dafa dëmm yi damaa xamul luñ ko mën a mel ni ku ngeen téemee ko groupe ba groupe ba su leen doomu jàmm ji ay dëmm ngeen dëmm yu xiif ngeen moo tax dafa nit ñi bu fa caméra yi nekkoon ngeen ngeen sax ma ma que maa ngi nii da laa check-in ci sama hôtel bi nii man maa ngi nii di bëggee di xappi man nag wax fa dëgg yàlla man nee naa leen bu ngeen taalantee ba jee xoola jël leen góor jigéen ya fa nekk yëpp ngeen baxal leen ci cin togg leen supp supp supp supp supp supp nabadaa bu faatu lawbe wala ngeen togg leen dëxin mbëpp wala ngeen togg leen rago wala ngeen togg leen tufe wala ngeen togg leen nable loolu sama cokk newu fi sama gat newu ci parce que man xam naa ne man saa ngoone biram jigéen man daaw ngoone mboñ mbaay ku may xaar Sénégal di nga xam parce que man aw maag yéen affaire jëm leen teew maag yéen. dem leen teew maag yéen toogal bëggee la la Sénégal. waaw man bi ma yàlla bëggee la ma génne Sénégal yéen a ngi noonu seen dëkk bu bon boobu nga xam ne ku judd da ngay bëgg a ah, dem. ba dem bàyyi bàyyi may ma ma daanele si dama may ma ma daanele fi dama ne yéen seen dëkk boobu bu ngeen taalee nit sax day sant yàlla parce que dëkk boo xam ne yéen ñi fa nekk amu leen fa jàmm yéen ñi fay dund amu leen fa jàmm ku fa juddu yaa ngi màgg loo am yaa ngi ko jël di ko jëlee mbaay ñii ñii nee naa la dañoo xiif yàpp dañoo xiif xiif a tax ñu doon ñu doon sulli doomu jàmbur jee bëggoon koo dibi yéen te bu ngeen xiifoon ñu lekk ko de parce que ay ma limam yow ñu sal sa nay nopp li may wax daf maa ñor bu ma waxate nga may dagg sama bëri wax sa sa yoon nekk bërki démb la benn baleen dama ne la niiw bi bu ñu am sénégalais niiw bi bu ñu leen seetaanoon ñu lekk ko bërki démb la benn baleen man am naa fa la kenn du ma yëpp benn baleen bu dee barki démb teer ci mmh. ar ci teer géejawaay xaw ma jàmmalaay nga gis sénégalais di ko dagg baleen bu dee ba nëpp ñu koy dagg di jël yàpp la di ko lekk ñii duñu duñu ay nit man daal sénégalais messi rek doy na sëkk messi messi messi messi messi messi ok léegi mbaaya waaw dafa am koo xam ne lew na ñaseen la nekk lew na ñaseen la nekk bokk ci ci xalifa bi moom ak sëriñ bee nekk yónnee na ma audio léegi nee na ma woo na ma bu baax nee information yu baaxul ak duggul léegi dama koy wo ma déglu xalaatam sénégalais yi déglu nan déglu <coughs> salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaw sëriñ bi ñi ngi lay ñi ñi ñi ñi ñi ngi lay déglu bu baax bëgg nga indil ñuy leeral li nga naan faux information la wala boog li ñuy wax teguwul fenn léegi ñëpp lay déglu. dañoo dégg euh, ci sa wax nga ne la loolu information. waaw mais mu ñi kilifa gi la wax loolu moo tax daa juum kilifa gi joxewul nañ ko tax parce que man mi wax a yow fa la ma fekk ñun mënuñoo wax ne kii góor jigéen la wala nangam ak nangam kon nee nañ la bu dëkkoon ci koñ bi sax ñu xam góor jigéen la ñun leew nañu seen bu boobu ñun ñoo koy taal koy taal ci def ci diggale jamono yeneen ci bi li mu digle woon mais kii génn àdduna yóbbu nañ ko fu ne mais defaral defaral garant wuy ma wuy ma defaral defaral sa réseau bi bu baax parce que sa réseau bi normalul ñun dégguñu la bu baax sa moo baaxul fi nga nekk xaw ma daa mu réseau xaw waaw waaw ñu lay déglu aca waaw dama waaw waaw. Euh, parce que kilifa gi joxe benn yoon dem leen suuli ji ko ngeen taal ko kilifa gi dafa oote jaar suñu war a jaar oo commissaire ma wax ak moom. man <coughs> maa ngi toog lii lépp fekk du ma ci loo xam ne affaire ñun ci xamuñu ko xamuñu ko digal wala nangam ak nangam mais li carrément bu ko xam carrément waa koñ boobu ñun ndeke lii ñu ngi lew na ñese lii am na semaine kaw la te ñun yëguñ ci te kenn mënul laa wax ni kenn kon nag képp koy xalifa moo joxe ndigal wala benn imam billahi la ilaha illa huwa xayru waxul lu am te Euh, serviteur la alaab sappoor man ci boppam kenn kilib yi ci moo ma yónnoon ma ànd ak ak police te ma mu dugal ma ci oto bi L200 bi seen benn minicar euh, police bi mu ngi topp suñ ginnaaw tegee ba ci biir mbooloo mi fuul bi bari na bari goo xam ne nit ñi ñu nee nañ ba di ma naan laa maaliku mbooloo mi mënuñ ñu safu déglu ma ne kilifa gi moo ñu yónni am na ñoo xam ne mu ñu bisi bisi yi nangam nangam booy commencé indi débordé laa tourné gisatuma léegi man li ma bëgg a xam mooy waaw léegi léegi li ma bëgg li ma bëgg a xam mooy taal bi nga xamante si nii dañ ko koo taal ana fan lan teg ak yéen preuve lan am ne moom dañ ko fekk muy sëy góor yo ñaar yooyu laa laaj. dama ne la taal gi nga xam ne taal nan ko ko. dama bëgg ñu ma ma laaj na ko la fan lan taal gi benn mooy première demande ah. ñaari demande bi ma laaj la ne la ndax da ngeen am preuve wala vidéo buy wane ne moom dafa da ngeen koo fekk muy sëye góor ban war koo mën a taal yooyu laa lay parce que population Kaolack ñoo fàq li ñuy bañ mooy ñu ne waa Léona Niassène ñoo ko taal amul doomu Léona bu ci bokk koo xam ne nii. mën nga wax bokk na ci taal bi wala nangam ak nangam yaakaar naa ne man kenn ci ñu fa taxawoon ci armée li te kilifa gi mooma no ba ñuy egg mbooloo mi te parce que ñi ma fekk sax ñu tiim bàmmeel bi mën naa wax ne ñoo xam ne nii ñi ngi jël ay alcool ñi ngi xet-xet boo xam ne ñii di tux ci biir armée li billaahi waaw gis nga loolu waaw léegi daal léegi yow nang yow nang yow nang yow nangu nga ne lii ñu def teguñu ko ci yoon déggoo ma ne la ñun ko koo xam ne nii digle na ñoom nga taal ko waaw ci ba muy dund asumalaak bu deeyee ah, asumalaak mais fan la fan la yàlla waa léegi fan la yàlla waxee ba muy dund mën nan koo taal léegi lan moo daf na la yonent bi waxul dañ koy taal de yonent bi def na bu dee nan ko rey lan ngeen di xamee ne kii góor jigéen la mu nekk ci koñ bi màggee ci koñ bi ba yàlla jëlal ko boppam ngeen doog koy rey bu leen leeral kay ngeen am preuve tax reyu leen ko avant loolu laa lay laaj. waaye ngeen doog ko rey non dama ne la ñun baatuñu da koo rey wala da moo tax kon yow xam nga affaire bi ni mu demee. waaw kay kon yow. waaw dama ne information boobu aada damay déglu ki la wax loolu waaw waaw wax la carrément man li may waxtaan ak ma man li may waxtaan ak yow damaa bëgg dama koo bëgg a tënk ci alxuraan ak xadisu yonent boobu nga wax ne yonent bee ko wax xadis bi xam naa ko xam naa li yàlla wax ci alxuraan amul fenn fu yàlla bindee ci alxuraan ne góor jigéen dañ ko war a taal taal yàlla nee na man rek maa jagoon nan d'accord foofu ba pare yàlla nee man rek maa jagoo taal man kese amul keneen dama waaw dama ne a la du ma la indil addis na la wala nangam a nangam mais baatu lew na ñeseen ak imaamu lew nii ñoo ko ñoo joxe ndigal loolu loolu laa bañ mu dégg imaamu lew na yëgul kilifa ak lew na yëgul nangam ak nangam ay nañ ko taal ak nangam ak taal wala ñu ko taal moom loolu su ma yoon nekku ci xaw ma ne maanaam daal yéen waa lew na da ngeen a dégager seen a wax ne maanaam imaam yi joxewul ndigal taal gi jógewul lew na loolu nga bëgg mu leer Adamo ma ma wax la li am lew na ñeseen billaahi yëgul man mën naa jàpp naa ne man maa. parce que boppam dugal na ci biir oto bi pour ma dem ak nit ñi. na leen kilifa gi mooy kilifa gi joxe ndigal nee na nañ ñëpp génn armée li ñuy liggéey service d'hygiène la ak waa SAPCO ndax bu ngeen ko sulee xaj jël yooyu conséquences yi ci nekk dafa am daa si génn xoola ci la ma population jël sama téléphone à la fin dafa mujjee feeñ ma tourné kilifa gee joxe ndigal ne nañ ah maanaam daal waa maanaam daal waa a wax ne waa lew na daal seen yoon nekkul ci gi seen yoon nekkul ci sulli ba parce que li ñu def nii liuyu ma li ñu def nii inde lan ko doon gis ak yeneen dëkk yi lii dafa ñaaw ndax képp ku ko mën a def tegoo ko ci diine du alquran du xadis bu yonent bi indi ah. bépp xadis bu yonent bi indi mën naa laa wax lam ca wax alquranu yàlla ji lam fa wax ci mën naa la ko ca wax taal yàlla kese moo ko jagoo amul kenn kun mën a taal du ma la du ma la indil addis du ma la indil ba pare li ma mën a leer ba leer daal mooy ñu ko taal te ku ñu lew nañu seen joojoowuñ lew nañu seen parce que man dem naa ba ci ar bàmmeel bi tiim naa ko sama akulay taalaa lay waxal tiim naa mbooloo mi ña taxawoon foofu amul ku ma ci ne na leen ne kii lew na la dëkk ndax ñooñu indis nañ gis naa sax ñuy tux ci biir armée yi ñun ba taxaw di wax lañ ne ñun réglé wuñ loolu dégluwuñ police dégluwuñ nangam nangam ak nangam ma ne leen kilifa gee joxe ndigal am na ci koo xam ne dama ne koy yéen murit ngeen déglu ma de ci ci àllaay bi laay ma ne ko a taw ko mooy waxee ma ne ko yéen murid ngeen su kilifa murid waxoon ñu taal ko nanga naa mais taal bi waxuma wala naan su ma yoon ko ci mais lew nañu seen taaluñ ko parce que nit ñi léegi xale yi population bi nit ñi dañoo xamadi xale yi amuñu yar. naan amuñu yar moom amuñu yar de jël ni rek teg ko noonu di ko taal noonu. amuñu yar de dañoo bëggoon a daal suma kaw sama téléphone dañ ko jëloon. Hmm. léegi nag ñu day bañ ñu ne xam nga dama dégg sa benn vidéo tontu naa la sax imaamu lew nii te billahi la si laa ilaa ilaa wa xayroo Adamo Sénégal lay waxal man wi laan Xalifa Ñas wi laan kaw kaw billahi wallahi tallahi gisuma ku lew na ku fa fippu ne nañ koy sulli wala naa a ñii wax ñëpp dañ naan lew na la xewe ñii ñëpp dañ naan imam bee joxe xoolal interview yi ngay dégg ñii ay noonam ñu def mën naa mën naa mën daal ay noonam la rek tamit xam nga gars yi moom mais lii moom teguñu ko ci yoon. waaw waaw ak xam nga lu ma jàpp mooy ñu dëkkoon la ci koñ ba xëy na ñu eenal ko nangam ak nangam. waaw loolu laa gis de mais ndax moom xanaa imaamu ndaw bi nangul bay nangu loolu parce que moom xam na li yonent bi wax xam na li alxuraan xam na tamit ne nit ki boo ko dee taal war ngaa mën a am preuve wala boo nga bett ko nit loolu xanaa imaam bi xam na ko am na mooy bi tàkk kaw kaw la ñu ne la kamasi yi taale xanaa kon man maay jógee Allemagne dem ko ci digg lew na lan ko taale yow nga ne ku dëkk lew na bokku ci yi maanaam waa lew na daal bu ngeen bëggee dégg-dëgg ñi ngi daw seen responsabilité nee nañ taaluñu parce que xam na ne li ñu def du yoon lii da dul yoon du diine du lislaam lii erreur bu mag la moo tax ngeen war a tey waa ji coupé na sax affaire bi dagg na. lii moo tax ngeen war a tey. Adamo gis ngeen li ma xam na ne teguñu ko ci yoon. ñëpp a ngi daw seen responsabilité. waa déglu ma déglu ma te sax du góor jigéen. may ma ma ñëw Adamo. xam nga li ma doon wax wala xam nga li ma doon ah. wax wax jaa ngi nii. gis nga les sénégalais ils sont stupides. les Amériques anglais naan they are stupid ils ne réfléchissent pas ils ils partent avec leur cœur mais pas avec leur mémoire gis nga waa ji fi ne ñu ngi jéem a daw seen responsabilité. ñu ngi daw kay. ah non li dafa ñëw lii may ma ci biir waxam mi ngi koy jiix mi ngi koy juux naan am na ñoo xam ne ñu ngi ma naan ay murit lañu. pare ca loolu jéem may ma may ma pare man xam nga man bu nit di wax déglu rek laay def man déglu rek laay def man bokkuma ak sénégalais man je suis très intelligent. man wax laay déglu mi ngi naan waaw ba ñuy taal ba mu yàgg ñee ngi naan sëñ Bamba nangama nangam mi ngi koy tuub <laughs> naan Sonko na mun a ci pare yëfi lew na lañ ko tëggee man nag léegi la ma benn booy envoyé message léegi bugguma taal voice bi nee na moom may ma ma ñëw ma may ma ma ñëw may ma ma ñëw dama ne benn booy daf ma envoyé message léegi Adamo xola moom nee na mi ngi ci gi bi nee na mi ci kër gi dëj bi am nee na xam nga kaa bi naka la demee nee na kii di ñaw kii di kii di kii di kii kii ñu kii kii ñu taal nii ñu ne mu ne téyër la dafa ubbi ñaari palaasam biir kawlax di fa ñaw oh. yor palaasam di ñaw mais ñu ne dafa am tatouage ci loxo bi tatouage boobu mu tatouage ci loxo bi mu am ku mu jotee loon kooku ne ko yow góor jigéen nga léegi nag moom bi mu gaañoo nee na dafa am ku woote parce que seen papaam moo ne nañ ko yóbbu tuubaa ñu suul ko papaam bi ko jur moo nañ ko yóbbu Touba ñu suul ko am ku woo waa Touba ne leen ñu ngi leen di indil néew bu jóge Kaolack kooku góor jigéen la léegi nag waa hmm. Touba ne leen ko fi suul noonu la yëfi demee léegi la bëgguma taal audioom parce que daf ma ko envoyé léegi laa ko déglu dama tëj sama micro léegi mu ne bañ ko indee kaw ndax ne dañ koy duñ ko duñ ko fi suul seen waa kër ne léegi nañ ko yóbbu kon ñu suul ko lew na nee nañ même waa ji nga xam ne moom moo woote woon Touba moo dem ba kër sëriñ bi ne leen dañ fi suul ci seen alméeri benn góor jigéen parce que dafa ne. Mbaye Mbaye am na ku ma envoyé message léegi nee na ma imam bi lañ bëgg a parce que police day ah. ubbi enquête. ubbi na doo doo ma déglu ma daaneel mais ma ma daaneel. Mm. mais ma daaneel. parce que actuellement nii booy bi nee na ma actuellement dañoo ubbi enquête procureur dafa ubbi enquête te képp ku nekkoon ba sa kanam feeñ. ci vidéo bi ak ñi ko digle ñoom ñëpp yoon da leen di teg loxo ñoom xamuñu Sénégal dëkk loi la ñoom xamuñu Sénégal dëkk loi la. mais kii nag xam naa dafa bëgg a protéger imaamam ñëw di ko buux waa Touba ak buux waa kër Sonko yi no non non non non ko taal du yéen a ko waa ji rey na ma dàq nee na fa naan Sonko nam naa la ak Macky Sonko nammoon naa leen Sonko Sonko dañ koy namm ci yàpp nit Sonko boo koy namm ci yàpp nit nga koy nam nam ak ci néew bu dee nga di ko taal naan Sonko nammoon naa leen ah léegi kay kay xam nga xam nga Adamo Adamo gis nga man li ma ragal sénégalais yi li tax ma ragal sénégalais yi ay dof lañ yoo xam ne ay dof lañ yoo xam ne suñuy def lu bon suñuy deflu lu bon yaa ngi may dégg xola Adamo yaa ngi may dégg sénégalais yi ma ragal leen sénégalais yi ay dof ay dof lañ yoo xam ne bu ñuy def lu bon ñi ci gën a dof ñooy taxaw ci kanam di wane njàmbaarte di wane ne maa fi nekkoon di xoola ñooñu nag ñoo ñoo dugg nag fi mu ne actuellement ñooñu nag ñoom la ñuy indil problème actuellement ak imam baak ñarax ca imam baak ñëpp fi mu ne nii moo tax waa ji woo nii xam naa dafa tiit parce que booy bi nee na ma procureur ubbi na enquête te ñoom ñëpp dañ leen di jàpp parce que doomu aadama lii président da ciy jóg du question affaire góor jigéen même xar sax bu buñ ko tegoon. non bu ci moom bu ci bu ci président jugul moom wala procureur mën na bàyyi Sénégal moom dëgg yàlla parce que lii dafa ñaaw lii daa ñaaw de. dëkku ñekki lañ ko daan gis te ñekki sax defuñu ko ñekki defatuñ ko dëkku ñekki lañ daan gis ñu teg nit di ko taal mais dëkku Sénégal loolu amu fi lii dañ ko war a lijjanti. lii dañ ko war a liggéeyante ñoom ñëpp nañ leen jàpp amul imam bi amul xutbu samaan bi amul kenn ñoom ñëpp nañ leen jàpp tëj leen ci kasu bi ñoom ñëpp dugal leen waaw yaa may dégg am na ñoo xam ne nag aadama bu leen fi dugal parce que man fi mu ne talatuma xuloo talatuma waaw boo fi yéegalee koo xam ne nii daf fiy di coow man damay wàcc man talatuma saaga sénégalais man nawlawu ma leen bay defanteeg ñoom benn erreur laa mos a def ci sama àddina benn mistake laa def sama àddina muy mois de septembre bii ñu génn dugg gi ma duggoon ci tiktok bi di defanteeg sénégalais loolu dama ko réccu ci sama àddina mais am na ñoo xam ne loolu moom faaleetuma ko lijjanteetuma ko talatuma ko sénégal nag xam nga lu leen dal xiifa tax ñoom ñëpp a mer fi mu ne sénégalais yi koo ci nuyu day guux ay lexam sénégalais yi koo ci nuyu mi ngi mer nit ku di di di wër sàcc bu mu dóor ak góor jigéen bu mu sulli ak nangam parce que dañoo xiif fi mu ne dëkk ba moo metti dañoo sonn te gis nga nit ku sonn nit ku ñàkk day soxor dañoo ñànki gis nga nit ko ñàkk te gëmoo yàlla da ngay soxor sénégalais yi dañoo ñàkk sénégalais yi dañoo ñàkk ñàkk gi indil leen iñaan ñàkk gi indil leen soxor ñàkk gi indil leen dëgg yàlla mbaay benn affaire naa la ko wax loolu mooy seen problème naa la ko wax sama numéro sama numéro defal naa sama numéro téléphone sénégalais yi ñu bëri yore nañ ko muy bii muy mhm. beneen bi nan ko dox ay mbokki waa ji mu ñëw contacter ma ma fexe ubbi oh, ka enquête bi lu mu laaj man dinaa na fexe ba enquête yi leer nañ parce que lii la ko def dañ koo tooñ injustice na dañ koo tooñ dafa war a leer man mii maa ngi wuyu ma yow donc doo ci takk république man wuyu ma man mii maa ngi ciy takrib booy bi léegi la ma woo mi nga ci kër ga nee na ma seen waa kër ngi nii di dëj ñu ngi ci dëj bi am lu leen metti ma ne dama ciy takrib bu dee génn xaalis dinaa génn xaalis su bari ñu téeg na ma ñëpp baal bàyyi naa saaga ñun ñëpp la ñuy tëj ci kaso ma ne dinaa ci jàpp ba mu sax dama ne woon bàyyi naa laay dama ne woon heure booy def loolu rek ba lijjanti ba lijjanti ñu bind mañ ma fexe ba enquête bu laajee Interpol parce que lii dafa ñaaw lii ñu ko def dañ la xoolal barki Serigne Ba nga ci maa ngi leen koy jox déglu ma may ma Adamo may ma Adamo maa ngi leen koy jox léegi ba pare cas bi dinañ ko tasaare ba addina bépp xam ne sénégalais dañoo violent maa ngi taxaw yi léegi diggu Times weer deful leen vidéo bu mel ni talaataay ngeen tasaare ko ci réseau sociaux yi da ngeen bon rek da soxor rek da ngeen enquête yi dafa war a ubbeeku ay mbokk bu ma contacté maanaam ñi war a rey Sénégal leen ñu rëyul te yàlla appuyé ci alxuraan mooy kan mooy am jabar mooy am na Adamo kii dañ koo yab dama ne la kii dañ koo yab ñaata sëriñ lañ fi jàpp ñu nekk ay jigéen te waxuñu leen ma ne bërki démb fii jàpp nañ fi benn sëriñ ci kër gu mag gu am sant gu mag muy tëdde xale yu góor yi tëdde ay boy am 14 ans quinze ans bañ ko yóbboo police taalibe mi dañoo génn ne du góor jigéen te taaluñu ko am na sëriñ boo xam ne fii ci Sénégal nit ñi dañ koy topp mu leen di maat loo di leen def loo lu ne te day taalu bii mi maa ci am preuve ma leer naññ te bu ngeen ma poussé dinaa toj réew mi man dara safu ma xam ngeen man sëriñ boo xam ne day nekk senegal gi te ñëpp a ko xam muy loo xale yi tëdd leen di tëdd da leen naan kaay leen ngeen maase ma xale yu góor yi buñ koy maase ba mu yàgg mu tëdd la. xale yu góor yu bari dañuy dugg ci sama réseaux sociaux bii di ak man naan ma mbaaya man diw moo ma def nangam ma ne ko li tax dénoncé woo ko mu ne bu ma ko waxee dañ may rey parce que duñ ko gëm ndax kilifa la te pourtant taalu leen ñooñu góor jigéen yaa ngi Sénégal yor seeni jabar yor seeni doom te bu guddi jotee ñu jël xale yi di leen tëdde góor jigéen yaa ngi senegal yor seeni taalube ñu tiim leen naan leen yéen a ñu yóbbu. dégg naa kii daal gars yi koy woowee Cheikh Fall mais booy naar Fall la tudd neen dégg naa ñu ne moom Mbàkke mbake la kii la la la la juddoo xaw ma mais ne ay famille nit ku baax la neen fu baax la bokk. daal moom li ñu def lépp amuñu ci preuve. nee nañ dañ ko iñaane sax man mu baax. booy bi nee na ma dañ ko iñaane nee na ma paap ma ne ko ah mu ne ma kii. waaw mais loolu baaxul waaye da doon ñaw atelier la yor di ñaw. yor ay client yor léppam nee naa la iñaan gi sénégalais yi iñaan soxor. interport direct damay man damay woo ñoo xamante ni danoo jege police. naka ngay jiinee nit sax góor jigéen te fekkoo ko ñu koy tëddee. yow kii ngay jiin góor jigéen fekkoo ko góor di ko tëddee kii ngay jiin góor jigéen fekkoo ko góor jigéen di ko tëddee fekkoo góor jigéen di ko fekkoo góor di ko tëddee mais sénégalais mën ngeen sos mën ngeen fen mën ngeen duul mën ngeen wax ju bon iñaan ngeen soxor ngeen iñaan ngeen soxor geen te barke alxuraanu karim man mbaay maa leen ko wax saa bu ma leen ko waxee ngeen gëm ko saa bu ma leen waxee sama wax da ko war a takk téere geen téye ko di ngeen gën a tor sonn yéen sénégalais di ngeen gën a torox di ngeen gën a jooy di ngeen gën a xiif yéen dong yéenay réew moo xam ne yéenay feebar di dem ci télé yi ñu leen di ketal yéen dong yéenay ah, réew moo xam ne yéen génn di leen toroxal ngeen di jooy di dee ci at di ci ndox mi di dee mel ni ay ja ay weñ gis nga taal yi ngeen di doomu aadama yi rey ngeen di rey aadama yi yàlla di nattoo di jël seen doom yi di leen yóbbu ba ci diggu géej gi di leen pëtëxal ci gaal ñuy dee par cinq cent par six cent par mille par deux mille parce que yu bon yi ngeen di def la te pourtant lu ngeen war a am pour tekki lu ngeen war a lu ngeen war a am pour tekki lu ngeen war a am pour tekki rek yéen sénégalais mi ngi ci seen réew lu ngeen war a am pour tekki yéen sénégalais mi ngi seen réew mais seen bon moo tax yàlla yàlla xam ngeen eh, seen teraanga ngeen war a jëriñoo maa ngi ñëw léegi. naaru ma jël ko jox ma kontam ma jël ko naaru mi kontam ma jël ko. kaa bi dama cee bëgg a dem ba mu ah, jeex bàyyee kaa bi boo bàyyee mu set man boo bàyyee mu moo tax ma bàyyi ko na ma mbokk yëpp contact maa ngi lay yónnee maa ngi lay yónnee numéro ah. mbokk numéro boy ko fenn du man bu doon alxuraan dama ciy sawar parce que man dama bëgg di défendre alxuraan man loolu dafa may neex ak xadis yonent bi mais du dara xaaral ma yónnee la ko teguñu ko fenn. delloo ma modératrice. xaaral nii xaaral ma yónnee ko kii moo bokk ak booy bi nee na du góor jigéen bu doon góor jigéen sax eh bu doon góor jigéen seen gat newu ci seen gat newu ci yéen a ngi katt jabaru jàmbur yi. day fekk jigéen boo xam ne takk ko ñuy fanaanee kattante suba ngoon. bu mën a contacter famille daal yéen ñi dëkk Kaolack dëkk Léona mu mën a dugg ci live bi wala mu mën maa woo. Sénégalais yéen may ma yéen Sénégalais yéenay dem ba bitim réew. di dëkk ak góor di tëdd ak moom suba ngoon guddeeg bëccëg te demu leen juróom demu leen jàkk demu leen jumaa demu leen jàkk demu leen jumaa tëddante di njaaloo jigéen bu gis góor fat ko sa kër di ko tëdde suba ngoon guddeeg bëccëg góor bu gis jigéen fat ko sa kër di ko tëdde suba ngoon guddeeg bëccëg te pourtant yi Yàlla dafa ne njaalookat dañ ko war a rey pourtant reyu ñu leen ñaata sëriñ lañu ñu fekk fii ñuy tëdde jabaru jàmbur di tëdde ay euh, jabaru jàmbur baaye sëriñ bi envoyé dama audio bu ngande mooy ki dëkk lew na ne seen sëriñ bi xaaral responsabilité ñoom ñëpp la ñuy jàpp waaw nan déglu li mu wax nan déglu li mu wax après la xewee mu naan waa Touba waa Touba def ci ah, dara quatre minutes la xaaral ma jël Fernando pare Fernand waaw maa ngi lay yónnee léegi kii bi am très bien dañ leen di jàpp très bien Fernando ubbi na enquête très bien teguñu ko fenn tare ne ah, Fernando nee na procureur ubbil enquête léegi procureur a ñu seetaan bi ubbil mu leer procureur nga teg ci taabal bi leer alxuraanu karim lii laa la ne bu ci bu ci procureur ubbil enquête man ma attaqué ki Sall man taal. moom la man Wilane Khalifa Niass Wilane kaw kaw ñu gën maa xam ci Wilane kaw kaw. ci TikTok bi boo duggee sama compte da ma gis man lu may dugg lu ne dof defuma ci affaire yi caaxaan man muñ gis naa lu ne damay wax te yàlla tax gis nga li fii li ñuy li ñuy wax nii moo amul. parce que damaa dugg gis sa compte tak nga ne imaamu lew nii xalifa bi parce que loolu lañ la jox na la xalifa bee joxe déclaration chef foo amul man Wilane Khalifa maa ko wax Wilane kaw kaw loolu amul. parce que mbooloo mi moo bari woon foofu foofu ba nga xam ne nii foo jigi foo ko natt weesu na ko Kaolack yëpp ba beeku parce que luy problème mi mooy rajo yi ko defoon direct internet bi gars yi mu ci mbooloo mi léegi ci la commissaire bi mu ñëwee man maa ngi toog ci kanam xalifa bi ñuy wax léegi ci la ne ko ah loolu moom xalifa bi ne ko loolu sax seen liggéey la. léegi ci la ko commissaire na ko kon da ñuy boole koo xam ne nii danañ bu ñu yeggee dina mën a wax ak mbooloo mi pour ñu génn mu wane ne yow yaa joxe déclaration ne na nga na gaa yi génn lii ci lañ ma dugal ci auto police bi moom may wàcce ma ci auto commissaire bi ma wàcc dugg ci yi mbooloo mi foo ko weesu na ko mbooloo rek bu ñu dëkkoon na kanaa ñun leew na ñooy kaw la kon. fa lañ dëkk da ngeen bari. sama ginnaaw. da ngeen bari ba léegi am na ñoo xam ne nangu ñoo déglu ñaan dégloo leen dégloo xalifa bi moo ñu yónni nee na na ñëpp génn armeel yi ndax lii du liggéey du du suñu liggéey na ñëpp génn armeel yi ndax armeel yi armeel am na kilifa yu fi tëdd ñu may leen leen cër na ñëpp génn armeel yi lii liggéey service d'hygiène la ak waa sapeur ñoom dinañ ñëw def li ci war man taxaw naa tiim bàmmeel bi taxaw naa tiim bi. ci la bokk ma ñëw na hmm. bi moo joxe ndigal nee nañ nañ ñëpp génn armée yi nañ ñëpp génn armée waa Sappour ak waa Safi Dieng def seen liggéey. lii di sunu liggéey ndax bu ngeen ko dindee xet yeeg yooyu noonu ak danger yi ci nekk mun na lor doomi aadama yi gars naa ñu mujj si mbooloo mi ñu réglé wuñ loolu nangam ak nangam. ku bokk ci na Niassène dina wax loolu bi en tant que xalifa bi dina joxe loolu ku bokk ci Léona di wax naan ñun réglé wuñ loolu ña fa ñëw xamuñ leen xamuñ leen man mi taxaw di waxal ak ñoom xàmmewuma ku dëkk ci koñ bi. Eh. ci la tournée gisatuma commissaire eh. bi force ak beneen beneen élément am. Eh. oto bi naan ana oto commissaire bi man moo fi indi woon. ba mu suul ba taay rocc sama téléphone sama poche ci la daanu toj ma jàpp waa ji mbooloo mi gars yi bëgg ko ma ne bu leen ko dóor ci la ko sama benn xarit militaire jël ko ne ko yóbbu police ci laa tourné di xool auto commissaire bi tourné rek seen mbooloo mi gaa yi di daw di génn mën a lan la ñu ne gaa yi sulli nañ ko ca laa daw man kat gi moo ma àngat ci biir kër damaa naan meew démb damaa wàccu wàccu ba bëgg a dee. fi ma toog ci kër gi fekk kër xalifa fi ma toog ci ron xalifa bi laa gis tàkk-tàkkal yi image yi gars yi di yuuxu naan nangam nangam ba léegi teguma billahi la si laay laaw ba léegi teguma fi suma tànk. tàkk-tàkkal bi foo tollu kaw ñëpp bàbbeeku nga commencé dégg Sonko namm nañ la dégg naa sax ñu ngi ci kalaasaale président Macky Sall population la koolaat nii dama am laaj bu ma nekk la kool léegi défendre mu góoru jigéen mooy xalifa bee joxe déclaration loolu lay bañ loolu kon waa Ousmane Sonko yee ko taal nga bëgg a wax Sonko namm naa la jaa gars di wax Sonko namm naa la nii sénégalais bu la bañee góor jigéen la lay jiin bu dee jigéen nga caga la lay jiin bu dee mag nga mu jiin la farmason dama ne la waa ji fi mu ne dafa tiit parce que procureur ubbi enquête te li du lii du enquête bu ndaw aadamoo ñii ñii ñii ñii dégâts biñ def dafa rëy aadamoo man waa ji barke alxuraanu karim laa la ne aadamoo oh. xam nga man tey laa yëg kaan man man démb laayif naa mais dañ doon waxtaan waxtaanu Nicaragua ak ay wane yàpp ki ay ceeb yëguma ko woon man léegi laa ko yëg ba ñu ma partagé passé sa passe laa dugg nii seetaan ko sa sa estati dama ne la ñii li ñu def déli bi moo rëy man bu waa ji doon dund ñu jël ko dóor ko ba mu dee taal ko demande kii bi moo bëri moo tax kii bi laay ñu taal ko amul problème bu doon bu doon waa ji day dund ñu jël ko taal ko dóor ba mu dee taal amul problème mais nit ku dee nit ku dee ñu suul la ba nga am ñetti fan ñetti fan ba nëpp naka la sénégalais yi amee xol nekk ay mba nekk ay animaux nekk ay bandi nekk ay nit ñu bon ñoo xam ne mbaam xuux sax a leen gën ñu koy sulli di ko buddi sénégalais yéen a bon sénégalais yéen a soxor sénégalais yéen a iñaan sénégalais yéen alku yéen a lekk lu bon sénégalais yi sénégalais yéen a bon yéen soxor yéen a iñaan li ma waxoon laa yox bu fekkee daan ko teg kon ci lislaam wala ñu teg ko ci diine amul problème mais man amul fenn fu ko teg amul fu yàlla indi alxuraan bi wala aaya nit ku dee du hadis du aaya nit ku dee dafa dee nit dee même bu doon góor jigéen aadamoo kii buñ ko fekkoon muy kattanteeg moroomu góoram ngeen baal ma ci kàddu yi yéen a bokk Sénégalais yi lenn laa bëgg muy képp koo xamante ni na. képp xam ne kilifa diine nga lew na nan ubbi ka enquête bi sew parce que liñ ko def dafa ñaaw ci ay kanamu mbokkam lan ko taale. lii lii dëgg yi la suñ lépp la parce que julli la di suñ lépp liñ ko def moo ñaaw képp kuy xalifa. dama la man maa ngi ñëw def vidéo bu rëy jox ko vidéo bu rëy laay def jox ko Macky Sall. du moom nuyu naa leen Mbaye nuyu naa la Adamo jëlal karma karma maa fi wax la ci dara xam na ay millions ñu génne ko. man de bu ko jëree ma ja man de bu ko ma jàppale. léegi nag ñaas yéen a ñëpp dafa ñaaw man dafa rek lii. rafetlu wu ñoo tiit fi ne ñu ngi daw responsabilité yéen da ngeen am fitu taal rek du da ngeen am fitu taal su ma defal demande naaru defal demande yu bon yooyu mbaaya nuyu naa la mbaaya bébé namm naa la maa fi chéri maa la raw démb laa gis kaa bi kay ma ne man de duma si wax man moom tëj naa sama micro non man dama waaru gisi kaa naaroo ngi ñëw moo dëkk kaw naaroo ngi ñëw moo dëkk kaw lax mi ngi noonu mu wax la ni mu demee aca naaro nuyu naa leen Jessica. na leen def Adama Mbaye yéen si jàmm. ça va bien ma ah, eh, Adama démb waa ji man dama ko affiché woon ci sama laay parce que man dama doon live ñu ah, ñu ma ne ma xanaa yëgoo li xew Kaolack léegi bi ñu live fee noonu ba mu yàgg si laa jël photo bi affiché ko mais xàmmeewu ma ko bu baax bi nga ko affiché. aji wax dëgg yàlla xawee ma ko góor jigéen marché la doon nekk di liggéey di dóorwaat di liggéey xawee ma ko góor jigéen nag mosuma gis si moom góor jigéen waaw Cheikh Fall la tudd xam naa ko bu baax a baax bi nga ko affiché nii laay soog a xàmme laa ne sama jëkk kii xam naa ko bu baax marché la nekk tooñ nañ ko nag man xam ñi wax ne góor jigéen la wax dëgg yàlla tooñ nañ ko parce que li ngeen ko def nii ñaaw na li ngeen ko def nii ñaaw na trop trop trop trop wax dëgg yàlla lii na wax dëgg yàlla yoon war na see jël def ci liggéey lii moom wax dëgg yàlla dafa métti jàpp nit ki dindi dindi ko si armée yi jàpp ko diri ko boo gisee niñ koy diree si armée li dafa ñaaw ba pare new bi mi ngi doon commencé di yàqu sax yaramam bi xonk cur man kii mhm. xaw ma si moom góor jigéen man ka Kaolack laa dëkk yi xam naa ko bu baax a baax gis nga xam nga buy buy génn di de buy gis nga xoolal moom bu ko gisee. mbaay boo bëggee dégg dëgg bi sax mooy daw. barke Serigne ah, Babacar Si. Adama gis nga Cheikh Fall mi boo ko gisee xam nga lan lay sol ay mayluus lay këppati sol ko noonu xam kaw dafa tàng moom lay sol léeg mu dem jënd ay voile këppati ko sol ko. yaa ngi dégg dañoo gaaw ji jiñ ay nit góor jigéen dañ see gaaw balaa ngaa lakk nit kay wax dëgg yàlla bàyyi leen. ko waxee ci alquran wala xadis su yonent bi dañ koo war a taal taal gi moo dul yoon laa la wax amul ci alquran amu fa yàlla nee na gunóor amoo droit taal ko yéefar ki gëmul yàlla di naan sànkara amul droit taal ko waxuma laa kee taal gi fu ko teg dama ne la dama ne la aadamoo aadamoo